la chaque ne bunt bi bokk na ci bunt yi nga xam ne yi ëpp solo ci jullit yi war a daje di ko waxtaane ci seen biir ci la bokk bokk ci yi nga xam ne it duñ yem ci rekk war ko waxtaane ak gëstu mbiram waaye jéem a xool it yan yoon lañuy jaar ba mën yar seen bopp yar ci seen njaboot yar ci seen société ci la bokk al amaana nag li ko mbokk mi firee noonu rek la dafa am ñaari maana yoo xam ne benn bu ci nekk sharia daf ko jublu dafa war a am am na al amaana boo xam ne dafay al wafa muy matal dafay firi al wafa muy matal ak al amaana boo xam ne dafay firi ndénkaan boo ne damaa yore amaana boo xam ne dañ ma ne naa ko jox diw kooku mooy ndénkaan boo xam ne dañ ma ko yóbbante ne ma jox ko diw boo waxee ne damaa am amaana fa diw sàngam mooy am naa ndénkaan boo xam ne bu fa nekk la waaye al wafa itam muy matal kóllëre muy lépp loo digee def ko kooku itam amaana lay fii ñaar yooyu yëpp nag benn bu ci ne sharia ko jublu ñaar yëpp benn bu ci nekk ni ko mbokk yi waxee da ko bokk ci wàllu jikko yi nga xam ne dañu cee war a yar doomu aadama yi defar leen ci kon mën nañoo wax ne introduction bi ñuy tàmbalee muy muqaddima bi kon mooy loolu jëkk a xamle lan mooy al amaana kon ñaari mbir yooyu lay firi ki nga xam ne matal na kóllëre boole ko ak ndénkaan mu jox ko ak xam kooku mën nañ ko tudde amin ku wóor la léegi ñaareelu tomb bi ci muqaddima bi moo di importance bi nga xam ne amaana am na ko euh, mën nañ cee lim ne importance boobu li nu koy woon bokk na ci ne borom bi tabaraka wa taala digle na ko te yàlla lépp loo xam ne santaane na ko xamal ne lu am solo la suñ borom tabaraka wa taala moo wax ne inna allaha yamurukum an tuaddu al amanati ila ahliha foofu néewul joxe leen amaana def leen li leen war ci amaana loolu su ko waxoon digal rek lay doon waaye fi def ne yàlla digal na leen inna allaha yamurukum seen boroom mi ngi leen di digal an tuaddu ngeen joxe al amaanaat mën ngeen ko firi kullëre ya mën ngeen ko firi ndénkaan ya lenn lu ci nekk na ngeen def ci moom ak xam su boobaa kooku mooy adaa borom bi tabaraka wa taala mi waxit ne fa in amina baadukum baadan falyuaddi falyuaddi alladi tumina amaanatah fa in amina baadukum ba su fekkee ni këllëre dox na sa diggante seen diggante ki nga xam ne moo warlu këllëre ba signé contrant ba nee na fal yu addi alladi tumina amaanata kañ wóolu na def la nga xam ne moom lañ ko wóolu na ko jaarale fa mu ko war a jaarale kon borom bi tabaraka wa digle na ko ñaareel bi ci lu ñu woon am solo gi moo di al amaana ak wóor leen lu ne nga jox ko àqam dafa bokk ci melokaan yi yonent yàlla yi yonent bu mu mën a doon rek xamal ne amiin la moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne mooy sayidul mursalin bokk na ci melokaanam yi ñu ko xame woon naka jekk moo di amiin la ba tax sax waa Màkka dañ ko daan tuddee tur woowu ci Shuara ci juróom benn birëb boo jàngee da nga gis inni lakum rasulun amin ci wenn saar rek inni lakum rasulun amin juróom benn yoon rot na ci suuratu Shu'ara ci ay yonent yoo xam ne yu bokkut lañ kon benn yonent bu nekk bu ñëwee ci nitam li mu leen di jëkk a wax mooy xam leen ne man ndawul yàlla laa lu melokaanu melokaan boobu muy al amin muy ndawul yàlla lu wóor laa mooy li ma leen di wax te sunu borom tabaraka wa taala la jógee te nëbbuma ci itam dara kon ñaareelu tomb bi ñuy woon am solo ji moo di ne melokaanu yonent doonut loo xam ne lu woyof la doonut lu tuur la kon lu am solo la ba tey it ñetteelu li ñu koy woon moo di al amaana ci melokaani al malaayika al muqarraboon ci la bokk te ka ci jiitu moo di jibril borom bi tabaraka wa taala tudde na ko al amin am na fu mu wax mu ne suratu shuara ba tey bihi ruuxul amin ma ne malaayika xam ne mu la moo wàcce alquran bi kon yokku ci wàññiwu ci am na fu mu ko melal mu ne mutaain samma amin mu ne ku kuñ dégg ndigalam la kuñ dégg ndigalam la ca kaw ci biir mbooloo malaayika yi waaye amin la mu di ku wóor la kon melokaanu yonent la waaye melokaanu malaayika yi itam la bokk na ci yi lu koy wonal ba tey itam ci am solo gi moo di borom bi tabaraka wa taala dafa tagg ñi nga xam ne dañoo yor melokaan woowu wax ne e, ñooñu ñooy ñi fi gën inna xayra man istajarta alqawiyu l amin ñaari mbir yi suñ dajee nee na ci nit kooku mooy ci gën ci koy jëflenteel kooku mooy ki gën ci ñi ngay jëflante benn bi mooy mu nekk al qawi mooy li ñu koy defloo mu man ko beneen bi ci des mooy mu nekk al amin doon koo xam ne ku wóor la ñaari melokaan la yoo xam ne danañ ci dellusiwaat ci kanam tuuti juróomeelu li ñu woon am solo gi moo di ne borom bi tabaraka wa taala dafa boole ku am amaana ci ñi nga xam ne ñu texe lañ ñi nga xam ne dañoo texe ci suuratul muminuun ci borom bi tabaraka wa taala qad aflaxa almuminuun alladina hum fi salaatihim xaashicuun walladina hum an illahwi mucriduun walladina hum lizakaati faaciluun walladina hum لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين faman ibtaxa waraa dalika fa ulaika hum alaaduun daf ca teg ne walladina hum li amaanatihim wa ahdihim raauun kon daf ne texe na ñi nga xam ne dañuy julli boole ko aku ragal yàlla tegaat ca ne texe na ñi nga xam ne bu ñu rombee ay caaxaan du mooyu teg ca ne texe na ñi nga xam ne dañuy joxe seen asakay alal fekkee ne texe na ñi nga xam ne dañuy garder seen bopp ba duñ mooy yàlla seen pëy duñ ko jëfandikoo dul ci seen soxna wala ci seen jaam boo xam ne sharia daf leen ko jox teg ca nag ne texe na ñi nga xam ne dañuy sàmm seen kóllëre ak seeni amaanaat muy seeni ndénkaan wala seen yi nga xam ne diggee nañ ko te war koo matal muy seeni contrat seeni dénkaan wala seeni contrat yi nga xam ne ñoo dox seen diggante ak ñi ñuy jëflanteel kon ñooñu borom bi tabaraka wa taala doole na leen ci ñu taxe ñi kon muy wane ne lu am solo la bokk na ci yi nuy woon importance bi ba tey itam mooy aaya bi sunu mbokk Ousmane Galaaju euh, junj léegi mooy li borom bi tabaraka wa taala wax ne wa anna allaha la yahdi kaydal xaa'iniin xam ngeen ne am kóolute contraire ba safaan bi mooy doon ab warkat borom bi tabaraka wa taala dafa leeral foofu ne ki nga xam ne dafay wor borom bi tabaraka wa du ko dimbali ginnaaw kii wor borom bi du ko dimbali kon ki nga xam ne dafay dul wor kooku la borom bi tabaraka wa taala di dimbali ginnaaw nag kooku la borom bi di dimbali kooku bokk na ci yi nuy wan am solo gi nga xam ne kon al amaana am na ko solo euh, bi ñu mujjee ci wane ni yu am solo la muy juróom-ñaareel bi moo di ba tey suñ mbokk mi junjoon ci muqaddima bi moo di ci jamono ji nu nekk la chaque ne ndaw ñi ndaw ñi ñooy kuréel bi gën a jëm ci diine loolu day bégloo bépp doomu aadama buy xalaat bu nekk boo xam ne mbirum diine ñor na da nga gis ne kuréel bi ëpp lu mu jublu ci diine mooy ndaw wala chaque ne ndaw mooy li ëpp solo ci xeetu bu mën a doon wu nekk kon kooku alhamdulilahi rabbil alamin waaye ndaw ñi seen jublu diine googu ah, boo xoolee li gën a bari dangay gis ne dafa am wet yum jëm am ay wet yoo xam ne dafa xaw a manqué tolloo gi war a am marché gi dafa war a dafa def bu dee ci wàllu pos-pos danañ ci di góorgóorlu bu baax di ko jàng ci wàllu ji ma xam téere yi lu ñu wax ak lu ñu waxut bu dee ci wàllu julli ak jaamu yàlla yi ñu ngi koy jéem a xam ñu ngi koy jéem a jëfe itam waaye bunt bi nga xam ne mooy buntu jikkoo ba léegi dafa am benn jafe-jafe bu ci am ci biir ndaw ñi mu di ñaari mbir yi mu war a boole ñaari mbir yi mu war a boole ngir nit ki jikkoom mën a baax ba tey dafa am lu def mooy jàng ko xam ko ba noppi yaru ci yaru ci biir jikko yooyu ndax kat jikko doonut loo xam ne da koy jàng ci téere mu mokk ñi daal di ne diw sàngam mel na nangam waaye dañ koy jàng ba noppi yaru ci yaru ci dara nag dafa jaadu mu am ku ci yar maanaam diisul fétal ba yaru diisul fétal ba yaru kon li nga xamee ne diisul fétal ba xam nañu su la fétal itam ba yaru pour nga xam faaw nga dem ci boroom xam-xam mu xamal la waaye ngir nga yaru yëpp faaw nga dem ci koo xam ne dafa yaru ba noppi mu yar boo gisee nag mbir mi am jafe-jafe mooy ñi yaru ba noppi bay yar moo bariwut dafa néew su fekkee kii yar bariwul ñii yare ñii jàngale dañ leen a ëpp kon ñii jàng mooy ëpp ñii yaru ma waxaat loolu su fekkee ne ñi nga xam ne jàng dañuy war a jàngale ba noppi di yar ñooñu ñoo gën a néew ñi nga xam ne dañuy jàngal nit ki rek mu dem résultat ba lay jox mooy kay jàng te yaruwut mooy gën a bari kay jàng te yaru kon manqué manqué bu foofu responsabilité la boo xam ne teguwul ci kaw ndaw ñi nga xam ne ñooy jóg di jàngi cet waaye tegu na ci kaw lool si ñi nga xam ne ñoo taxaw di jàngale diine ji ak di ci yare tudde seen bopp ay doaat ñoom am na melokaan yoo xam ne noonu lañu war a mel di ko dund war nañ caa yar ndaw ñi itam waaye ndaw ñi it jaadu na ci ñoom ñu nangoo déglu nangoo jëriñu ci ñi nga xam ne ñooy ñoom kon noo ngi ci jamono joo xam ne eh, ndaw ñi jublu diine di ci góorgóorlu laaj nañu góorgóorlu bu baax a baax ci wet gi nga xam ne mooy wetu jikko jéem koo jàng xam ko xam yan jikko la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon ñu jéem koo melowoo jéem a seet lan mooy jëmale nit ci kanam ci wàllu jikko ndax ñu mën a jëm kanam ñoom ci seen biir bopp dem nañ ba toll ci jamono joo xam ne mboolem système yi ñu tëroon ci wàllu yar xeet yi ña ko tëroon moo xam ay xalaatkat lañ muy ay tubaab wala ay naar su fekkee ne jógewul woon ci wax yu sunu borom tabaraka wa taala wàcce woon dem nañ ba ñoom ñëpp yëg nañ ne ak échec am na ci loolu moo di lañ tëroon jàpp ne lii ku fa jaaral li nit bu noppee mën naa doon ku baax ku jub ku jaar siraatul mustaqim euh, donte côté ñu gën a bari ci ñii tër système yooyu wetug adduna dong la ñuy xalaate même wetug adduna googu dem nañ ba yëg ne échec nañ ci ndax gis nañ ne doomu aadama ci boppam ci kaw suuf ñeeñ ne baax nañ bañ mën a liggéey mën a produire comme ni ñu koy waxee mën nañoo xëy liñ defoon lépp ñu màbb ko ci benn bés mu yàquwaat kon boobu éducation baaxut kon dem nañ ba ñoom yëpp yëg nañ ne war nañoo gëstuwaat yeneen i yoon yu ñuy jaar pour baaxal doomu aadama ci kaw suuf mu man di ñi te duutu yàq mu mën di meññi te duutu yàq su fekkee ne loolu nag dem nañ ba toll foofu dañoo war a yëg wala jullit moom war naa yëg ne defarwaat googu munta amee fenn lu dul delsiwaat ci biir lislaam jikko yi mu jàngale pas-pas bi mu jàngale ñu jéem koo jàngaat jéem koo dundaat ci biir loolu ci la loolu di mën a amee kon loolu ay tomb yoo xam ne dañ ko bëggoon a ubbee ci ñu yëg ne bunt bi bunt bu am importance la te lislaam daf koo jox solo su am solo bu dee nag mazaahiru al amaana muy kóolute moomu ci yan plan lay feeñe maanaam yan bunt nit ki ngir mu am amaana foofu la war a gën a féete foofu la ko war a gën a feeñale su fekkee aw xeet am na kóolute ngir nu mën a àtt ni am na kóolute wala amu ko ana fan lan koy xool ci ban balance lañ koy teg pour mën ne diw sàngam ku wóor la wala ku wóorut la xeet sàngam xeet wu wóor lañ wala nekkuñu xeet xeet wu matal kóllëre lañ wala mataluñ kóllëre am am bi ci njëkk mazhar bi ci njëkk mooy al amaana ala diin nit ki dafa am contrat bu rëy rëy bu mu signé digganteem ak boroomam bi mu xasee wax ne ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah am na lu mu signé digganteem ak boroomam sallallahu alayhi wa sallam moo di seede na ne amul benn buur bu ñuy jaamoo ci mu yeyoo dara ci jaamu wala jaamu nga di jëriñ wala ñàkk jaamu nga di lor kudut ki nga xam ne moo bind bindee ndaw lim yebal itam moo di yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñaari mbir yooyu bi mu ko xasee wax kooku teg na boppam koo xam ne danañ ko nattu seet ko ba xam kuy matal la wala ku dul matal kon kóolute diine mooy bi jiitu ci kóolute yi moo tax aaya bi mbokk mi jàng borom bi tabaraka wa wax ne inna aradna al amanata ala alsamawati wal ardi léeg-léeg am doomu aadama joo xam ne dañ koo dugal ci ay giraawaani mu def jaaxum yoo xam ne yu mag a mag la fekk ña ko ko jox ñoo ko tooñ parce loolu du wàllam léeg-léeg nga dégg ONG boo xam ne dañ ne ci loxol diw lañ ko teg diw moomu nu mu dindoo mooy ku ñëw boolaaja mu jox la ku ñëw boo laajee mu jox la te fekk ndekete liggéey ba la ko tax a jóg du loolu liggéey bi la koy tax a jóg mooy bunt ngi boobu na nga ci def bunt bi na nga ci def bunt bi na nga ci def beneen bunt bu dul boobu nag bul ci def moom mu ñëw nag ubbi bunt yëpp ku ñëw mu jox la su kees gi jeexee ñu ne diw sàngam ab client la lekk na kees ga fekk ndekki doonul woon ab waaye dañ koy jox loo xam ne yeyoowu ko loolu palaasam yeyoowu ko tekkiwul ne baaxut waaye lii la mënut am na ñoo xam ne alal mënuñu koo seere mënuñu koo yore suñ ko yoree dañ koy yàq ku mel noonu kenn bu teg ci moom loxo loolu ñuy yëngu ci ay ONG yëngu ci ay ay groupe ak ay mboolo ay association loolu lépp ñooñu war nañ koo xam suñuy tànn nit ñu naan diw sàngam yow lañu jox responsabilité sàngam muy bu tuuti wala muy bu bari war nañoo seet ba gis koo xam ne xam nañu kii mën naa gérer li ñu koy jox ñu ne ko yoral nangam su fekkee ku ko mënut la ak luñ lu mu baax baax lu mu fonk fonk julli lu mu fonk fonk woor na mu doon ku baax danañ ne ko yow loolu du sa wàll mënoo ko ndax lii nangam ak nangam la laaj waaye moom kon foofu lu aaja bàyyi xel la yonent bi alayhi salaatu wasalaam joxe na foofu bind boo xam ne bu am solo la kon ñu gàttal foofu alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala daanaka tomb yi nga xam ne moom lañ tiim nii moom yi Cheikh Ousmane doon wax benn la waaye rek danaa junj ñaari mbir yoo xam ne benn bu ci ne day confirmer li mu doon wax euh, benn bi ak yaakaar lay doon ak yëgle ne jullit yi war nañoo gën a bàyyi xel ak fépp fu ñu mën a nekk mbirum amaana ak mbirum diine ndax ki am diine mooy ci am amaana ki ko ñàkk mooy ci ñàkk amaana kon war nañu jiim a xool yan yoon la ñuy jaar ba nit ñi ñu mën leen a yar bañ am li ñu tuddee al amaana jàpp naa ne loolu bokk na ci mooy jéem a seet maanaam xale yi fan la ñuy war a mën a jaar ba teel koo jëmbat ci ñoom buñ xoolee danañ gis ne bunt bi amaana gën a jafe bunt bi gën a amaana gën a jafe mooy wàllu muamala ci alal jëflante ci xaalis mooy bunt bi gën a jafe nga xam ne daanaka sooy boo nga ne bunt boobu kuñ ci nottu nga mucc yeneen bunt yi ci def yëpp mën nga ci mucc defe naa ne xale bi ci jamono yi nga koy yar mu nekk ab xale bu ndaw tàmbalee am xel am fukki at jëm kaw tàmbali di ko jox responsabilité ci alal lu am solo la léeg-léeg nga dénk ko ñaar fukki dërëm wala téeméeri dërëm ne ko dencal ma lii ba ma laaj la ko léeg-léeg nga ne ko ah téeméer bi ma la dénkoon jox ma ci ñaar fukk boo léegi nga ne ko joxaat ma ci ñaar fukk boo léegi nga woo ko ñaataa ci war a des mu ne laa juróom-benn fukk day ca des nga ne waaw gardeel ba ma laajaat la ko yaar yu ndaw yaram yooyu jiim ci jëmbat xale bi yëgal ko ne ko fabloo moomut lu rëy rëy la lu rëy la fa yàlla lu rëy la ci sa diine lu rëy la ci sa diggante say bokk ñi ngay jëflanteel muy doomu aadama yi ci kaw suuf loolu ku ci jëmbat xale bi ndànk ndànk mën ngaa dem ba àgg moom ci di ko dénk alal ju bari mu di ko denc te saa boo ko soxlaa da ci mën a jox ma ne su tàmmee loolu bu ëllëgee ginnaaw xas na dem ba gëm ne nii la ko diine ji bëggee nii la ko lislaam bëggee te lii mooy njub lu dul moom ndëngate la boo léegi su demoon bañ jox ko responsabilité bu rëy ci garde alal itam li wóor mooy dana ko garder waaye su fekkee ne lépp dañ koy wax rek noonu waaye mu jéemuñu cee tàggatu ci di ko ci wàllu pratique di ko jëflee di ko jëfe Euh, tatbiq boobu mën naa dem ba jafe lool nit ki mën naa dem ba mu leer ko ne du nii waaye pour mu jëfe la di nam doon lu jafe luy jafe lay doon ci moom ndax yaruñu ko ci kon jéem cee yaru yar ci xale yi lu baax la ñaareel bi moo di mbirum diine ak yaru ci moom dong moo fi des ci yar bu mën a jubbanti nit yi ci def yëpp ay jaaxaan la rek kon ma ne ñëpp aajowoo nañ ñëpp aajowoo nañ nitu diine ñi koy jàngale ak di ci yar ñu di leen woo léeg-léeg di dajale seeni mbooloo ak secteur bu ñu mën a nekk moo xam ab maire yi nga nekk wala ministère nga nekk wala foo mën a nekk ci société sax jaadu na léeg-léeg nga woo boroom xam-xam boo xam ne bunt bu mel nii danga dajale sa mbooloo mu waxtaante ñoom ndax ñu xam ne mbir mi mbirum diine la mbirum seet sa digganteeg sa boroom la mbirum maandute la fi nga xam ne yooyu am na ko fexe ba ay nitam gëm ci diine ne jubal ci boppam mooy diine dëngal mooy ak ñàkk diine ñu fexe ba yar leen ci kooku mu ne dana noppalu waaye su lu dul loolu rek nit ñi mën nañoo sonn lool ci di jiima saafara xeeti ndëngati yi am ak jalgati yi nit ñi dugg kaso ko génn ñi alamaan ak ci ay kër ak dugg ak génn yooyu yëpp lu tax mu faj jikko yi nga xam ne moo nekk ci nit ñi yàlla moo bind nit ñi moo xam li nekk ñoom ci ay dëngate kon bu nee suñ leen jaaralee fii ñu jub suñ leen fi jaaralewul duñ jub nañ seet fi nga xam ne foofu lañ leen di jaarale ñu jub muy mbirum diine ñu jàngal leen ko xamal leen ko te yëg ne njàng moomu du weesu nit ña dem ba dajaloo nekk ci seen i bureau di liggéey mën nañoo am bis boo xam ne dañuy xëy daje ci benn place boo xam ne bu yaatu la ñu ni lii waa mairie sàngam ñoo fi xëy daje tey borom xam-xam mooy ñëw di waxtaan ak ñoom ci wàllu amaana jàngal leen ba xam yi ñu yor nan lañ koy sàmme nan lañ koy garder ak ni nga xamee ne su boobaa ci la ñuy amee seen ngërëmul diine seen ngërëmul borom ak seen ngërëmul askan wi nga xam ne ñoo leen teg foofu ñu di leen liggéeyal waaye lu dul loolu jalgati moom ba fii daal di dafay euh, ci wàllu jeexit yi nga xam ne moom la kóolute di def ci euh, nit ki wala ci société bi ñaari xaaj la bu dee ci wàllu individuel bi muy doomu aadama ji euh, li muy def ci moom li ci ëpp solo moo di al istiqraaru nafsi xel mu dal ki nga xam ne dafa jub mu wóor ko ne li muy def lépp lu leer la dara lu lëndam nekku ci moo xam ci bureau la nekk moo xam ci boutique la nekk moo xam oto la yor di dawal moo xam place buñ ko mën a jox ci àdduna wóor na ko ne li muy def moom lu leer naññi la loo xam ne fuñ ko ko laajee rek mën na leen expliquer li mu def mu leer naññi kooku ma ne li mu jëkk am mooy xel mu dal xel mu dal parce que wóor na ko ne moom amul kenn ku koy topp naan ko dam jox ma sama nangam ci dem ba àgg foofu kooku xelam dana dal du am problème digganteem ak nit ñi itam day leer kon ko mooy al istiqrar al yi digganteem ak doomu aadama yi wàllu diine gi taxul ñuy wax ndax mi ngi def li ko boroomam digaloon kooku mooy safaanu ki nga xam ne dafa nekk ci yi ki nekk ci yi li muy jëkkee ñàkk mooy al istiqraaru nafsi boobu xel mu dal ginnaaw nga xam ne la muy liggéeyee mi ngi ciy njuuj njaaj ñi muy séqal ci wàllu jëflante mu ngi leba leba leb ba fees dell ak i bor yu mu fasut yéene fay kooku su génnee ci mbedd mi di dox kum xool nga di ko geesu sax day ragal ne kee am na lu mu xam ci lii ma def moo tax muy geesu lu tax loo may xoole day mujj foofu lay nekk day mujj situation bi loo may xoole la lay wax boo ko dee xool ndax jàpp na ne am na lu mu def fi béréb loo xam ne yow yëg nga ko moo tax nga di ko xool bët boobu nga ko xool kooku xelam dalut kooku xelam dalut sooy wax ak moom sax langage bi muy waxee mooy toujours miim miim mën naa taxaw mbir moo xam ne yow da nga doon wax ak moom ci lu simple loo xam ne jotewul dara ak lenn waaye mu déggee ko ne ne ndax am na lu mu denc fi barab loo xam ne jàpp na ne moom lañ yëg day taxaw di weddi di miim naan nangam nii la demee yu noonu nit ñi dañ ko a dégg dañ ko xam di expliquer loo xam ne yow mi taxaw di wax ak moom da gëlëm ndax doo xam li muy wax lu mu doon waaye fekk la ko war a mooy xel mu dalut ma nekk ci biir moo tax ku dox ku nekk jàpp na ne am na tuuma joo koy toppee joo xam ne moo tax nga topp ci moom di dox kooku musiba la kooku istiqraar nafsi muy xel ma dal amatu ko al istiqraaru ijtimaai taxul ñuy wax wàllu dundinam ci biir askan wi dundin wu jafe lay doon ndax fu mu toll ne am na nit ñu koy téléphoné wala ñuy ñëw ci moom diw sàngam fay ma diw sàngam waxtu yi nga waxoon jot na diw li nga waxoon defoo ko ci lool lay dëkk kon kooku bu dee ci biir bakkanam la fa nekk ci métit la dëkk bu dee bëccëg digganteem ak nit ñi ci ay jafe-jafe lay dund ak ñoom wàllu diineem taxut ñuy wax al istiqraaru diini du ko am parce que léegi li ko boroomam digaloon defu ko muy maanduwut jubut aw turam dana yàqu ci nit danañ xam ne ku baaxut la xam ne ku la mi xam ne lekk katu alal jàmbur la te pirian la waxin wu ñaaw bu nekk des na ko teg ci ab daram te du ko mën a faj parce que moo ko def kooku jullit bi war naa war tadiko melokaanu melo am naa nag société bi ni ko Cheikh Ousmane junjee noonu rek la demee société bi nga xam ne dem nañ ba li ëpp ci aw nitam mooy njub de sax dañu wax ne ñëpp ñëpp moom mëne sut waxe bi ñëpp àndandoo jaar ci siraatal mustaqim kooku sunnatullahi la boo xam ne mëne su ko sott waaye suñ demee ba li ëpp ci nit ñi nekk ci njub am amaana kon kooku société boobu mën nañoo wax nañ ña dëkk ñoom fexe nañ ci seen wàllu àdduna seeni xel dal na ci seeni alal kenn du ko jalgati gisu ko jalgati ci zahir gisu ko jalgati ci baatin seeni bakkan ñoŋ na seeni alal ak seeni der ñoŋ na kenn du leen tooñ gisu leen xas gisu fab seeni alal gisu ko siif gisu ko sàcc société lay doon boo xam ne kenn ku ne li nga yeyoo dañ la koy jox sa àq muy sa droit dañ la koy jox fépp foo xam ne waree su faa teg doomu aadama diis ko fa teg fi ñu ko war a teg rek lañu ko def société la boo xam ne ku tooñ ak foo mën a toll ak noo mën a toll ci daraja dañu ne la eh yow yaa tooñ jëlal àqi jaamur nga jox ko miskin mii li muy néew néew doole yaa ko tooñ su boobaa dañuy dem ba li ñu tudde justice muy maandute day dem ba tasaaroo ci biir askan wu mel noonu ndax kenn ku nekk da xam la lay war da nga ciy taxaw itam na mu ware képp ku yeyoo tiraanga su boobaa moom la ñuy teral ku yeyoo toroxal bu boobaa moom la ñuy toroxal waaye nag jamono yoo xam ne dem nañ ba société bi li ñuy wax amaana amatul kooku safaan bi mooy am mbir yi day wëlbati ña yeyoo woon tiraanga ñooñu la ñuy toroxal ña yeyoo toroxal ñoom la ñuy yëkkati ca kaw ne gaañaa ngi nii yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci xadisu abi hurayra dafa wax lu nuróog lool lool xadis bi ibnu maaja moo ko génne ci sanad boo xam ne xasan la mu ne sa yati ala nnaasi sanawatun xaddaat nee na jamono dana ñëw ay at ñëw yoo xam ne at yi wor lay doon yusaddaqu fiha alkaadib wa yukadabu fiha alsaadiq nee na su boobaa waxkatub dëgg fenkat lañ koy tudde su boobaa fenkat waxkatub dëgg lañ mujj tudde ko wa yu'tamanu fiha alxaa'in wa yuxawanu fiha al amin nee na ki nga xam ne warkat la woon moom la ñuy yëkkati ne waajaa ngi nii kii moo wóor ki nga xam ne ku wóor la woon ñu ne ah diw sàngam di ku baaxul la wattandiku leen ko mu teg ci moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne wa yantiqu fiha arruwaybita fi amri al aama qiila wama ruwayd رويبضة قال الرجل التافه في رواية أحمد السفيه ينطق في أمر العامة nee na jamono jooju day dem ba ku tekkiwul dara xamul dara du ci diine du ci àdduna aw fitam àgg ci di dugg ci biir masala yi diine yoo xam ne aw askan mën na caa yàqoo deret mën na caa tuuroo àdduna mën na caa tukkee fekk ay nit ñoo xam ne àgguñu fenn du ci xam-xam du ci seen diine du ci seenu ragal yàlla ñu ñemee dugg ci masala yu mel noonu di ci wax yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na wa yantiqu fiha arruwaybidatu fi amri al-aama amri al-aama mooy mbir yi nga xam ne fii masail yi ñu tudde ne taumu biha al-balwa am na masala yoo xam ne buñ ko jaxasee ci biiru askan mën naa tàqale xeet bi ba faaw mën naa yàq seen diggante ba faaw itam su ko defee yu mel noonu Euh, askan wi muy société bi saa boo xamee ne dem na ba amaana amatu fi lu mel noonu la leen di jural jeexit bu naqari wu mel noonu moom lay jur mooy kenn duutu wóolu kenn kon ci gàttal mën nañoo wax ne mbir yi nga xam ne moom la Ousmane tuddoon moom lay confirmé waat moo di su fekkee ne amaana am na danañ am siyaadatul am danañ dem ba sécurité nit ki am ko ci léppam alalam ak bakkanam ak ab daram ak lépp kenn duutu ko tooñ danañ dem ba am li ñu tudde al istiqraarul iqtisaadi bi mu tudd léegi nit ñi seen koom-koom dana dem ba doon koom-koom boo xam ne bu jub la ndax kenn jëlgateetul kenn fabatul loo xam ne mbooloo mee ko moom jëmale ko ci biir këram wala mu di ko jagoo moom dong waaye li ñëpp bokk ñëpp ko bokk kenn ko nekk la nga moom yaa ko moom su boobaa suñ koy dund dañuy am dalu xel ci wàllu seen koom-koom danañ am li ñu tuddee al istiqraaru siyaasi mu di ci wàllu politique danañ dem ba nit ñi seeni xel dal ci wet googu ndax bëgg nguur du tax ngay dal ci kaw nit di yàq ab jaram wala ngay wax ci moom loo xam ne du dëgg te fekk li nga ci jublu mooy na kooku suufe mën naa kawe bu boobaa jullit yi seen politique du deme ci noonu duutu mel noonu dañuy sàmmoonte ne lenn lu nekk dafa am axlaaqiyaat dafa am jikko yoo xam ne ci lañ koy jaare te it dana dem ba dootuñu jël kenn di ko teg ci place boo xam ne loola du mbiram xamu ko wala mënu ko ngir politique rek yëkkati ko teg ko ci place boo xam ne du mbiram boobaa dañuy dem ba weesu foofu dañuy dem ba àgg ci xool li nga xam ne mooy intérêt bii delluwaat ci xeet wi lépp loo xam ne day tax intere boobu ñu jalgati ko wala teg nit ci place boo xam ne day jalgati intérêt boobu nga xam ne ci xeet wi lay dellu su boobaa loolu day seey ci wowu askan kenn duutu ko fa gis ci biir loolu ci la ñuy amee al istiqraaru siyaasi dañuy am itam su loolu lépp amee tatawur day am ndax xeet yépp dañuy jóg nag liggéey yi liggéey yi caaxaan yeeg tappale yeeg ñu ñi nga xam ne kenn xamut lu ñuy liggéey ci àdduna nga xam ne da ngay gis rek ñu yor seeni saag yi waaxu di dugg ak génn bu ëllëgee nga gis ñu tabax ay immeuble yoo xam ne kenn xamut fu loolu jóge lu mel noonu day seey duut fi jóg kii liggéey di nangoo sonn su boobaa moom la ñuy gis ne kooku mooy am ki nanguute liggéey kay du amati fu mu dugg nit ñi ñu bare bari dañ lay wax ne xaalis kenn du ko liggéey dañ koy liggéey waaye mbir mi du noonu xaalis des ko war a liggéey boo yi ak réew yi nga xam ne mënuñoo fexe ba jëm jëm fenn jëm kanam jëm kanam moo di seen lépp dañ ko sukkandiku ñeneen dafa nañ leen lu nekk yow da ngay rëdd rek say projet nii la war a demee nangam su ma noppee am na nit ñoo xam ne su ma leen ko joxee ñu financé ma ko loolu dafa war a dem ba jullit yi dañ ko war a weesu même jullit yi nga xam ne dañuy jëm a góorgóorlu ci seen diine di ko doxal moo xam lu aju ci lii ñu fi doon wane ci gannaaw muy iftaaru saaim yii jullit yi dañoo tàmmoon bu koor gi dikkee rek ñu ah, yoo xam ne danañ ko séddale ñu am ko ci jàkk yi def iftaaru saaim su ko defee jàkk ju dem na ba sunu borom tabaraka wa taala neex na ko loolu mu coupé ko dagg ko bind la war a doon ci jullit yi pour ñu yëg ñu ñun yëg ne fenn fu ne lu leen doya nga fa waaye ndax organise nañ seen bopp bu mën koo jëfandikoo wala déet kon loolu dana doon ab yar boo xam ne bu daalee seen kaw war nañ cee jëriñoo organiser seen bopp defar seen bopp ba luñ soxlaati bu ëllëgee ñu mën a eh, doxal bu dee dañoo bëgg a tabax seen jàkka ñu mën a tabax jàkka bu dee dañoo bëgg a tabax daara ñu mën ko tabaxal seen bopp bu fekkee dañoo bëgg a dogal kuy woor ñu mën ko dogalal seen bopp waaye duñ toog rek di séentu loo xam ne ci bitti lay jóge loolu du am réew koy def waaye nit ñi war nañu génne seen xel ci loolu te yëg ne fenn fu la fa ne ci xikma sun borom tabaraka wa taala la fa nekk doy na leen fenn fu ne rek la fa nekk doy na leen ku ñàkk ku ne wala fukk yu ñàkk yu ne ne am na kenn koo xam ne mënoon na leen yóbbaale asakaam képp mën na leen yóbbaale waane su fekkee kooku génnewut asakaam wala su ko génne joxewu ko fa mu ko war a joxe loolu mooy indi jafe-jafe ci ci biir dundinu xeet yi loolu lépp su amaana amee kooku day day dañ e, amaana boobu su amee day indi al tarabut bayn al afraadi wal usar wal qabail al mukawina lil mujtama ñi nga xam ne ñoo su société bi boo xoolee da nga gis biir ay xeet gis ay askan gis ay giir gis ñoo xam ne ñii ñu kawe lañ la tudde ñii ñu suufe lañ su amaana demee ba jub ba tasaaroo diine tasaaroo mooy wane ne xeet wépp danañ yëg ni wenn askan la li ngay dégg ñu ci yenn réew yi ñuy dem ba mu yàgg ñu ne giir sàngam giir sàngam ña ngay xeexoo ñuy xeex te fekk ci kaw dara dong lañ ko teg kooku diine waru koo fekke diine waru koo fekke diine mi nga xam ne dafa jàngale ne boo gisee borom bi tabaraka wa taala def leen ay xeet shuuban wa qabail lim ci jublu mooy li taarafu ngir ngeen mën a xamante xam nga kooku waxul ne pour ngeen xeex wala pour ngeen noonoonte waaye bu ñu xamee ne kii ci askan sàngal bokk kii jóob la sant ñu ne ak kii njaay la bokk ñu ne ñooñu nañ xamante ñoom ñaar far sax kal jubbi seen diggante ñuy waxante yoo xam ne kaf lay doon seen diggante donte mosuñoo gisante it jëmm diine ci boppam dafa am mu ngi organiser askan wi noo xam ne suñu doxee jàmm day def bay deret duutu tuuru ci kaw askan wala lenn loo xam ne luy nuur lool su ko defee ci lool ci la xeli nit ñi di dale eh, di ñaan borom bi tabaraka wa taala mu boole ñu tawfiq kon ñun itam ñu taxawlu foofu ndax dafa naa ne waxtu julli jot na wallahu alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina